bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi la aalamiin laa xawla wala quwwata illaa billaahi aliyyil aziim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Xadim noo ngi ñaanal Sëriñ Tuubaa Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàggal yàlla yàggal te loolu ak wéram di siyaare mbokk mbokki jullit yëpp ak bokki taalib yi ci weer wu tedd wi ñu tàbbi te moo di weeru weeru koor ñaan borom bi subhaanahu wa yàlla ñu yàlla may kàttan gu ñu ko woore te jàppale na ci ni mu ko santaanee ñu defe ko ni te jële ci nag jeexital yoo xam ne danañ ko mën a dundaale su ngirub dund te yombalal nu mbooleem luy xeeti ndog yi ndogu yi ci barke Cheikhul Xadim mbokk yi tey ñu fas yéene ànd ak yéen ci seen seen bii di Assalaamy TV mu lëkkaloo ak seen Facebook bu Assalaamy officiel ñu ñëw ak yéen rek ci tombe bis bi tombe bis bi ñu di ko fas yéene ànd ak yéen lépp tënku ci njàngaleem Cheikhuna Ahmadul Xadim xam ngeen ne sëriñ bi ni mu daan jàngalee ci téere yi noonu la daan jàngalee ci ay tomb tomb yooyu nag ñi nga xam ne téere yi raw na leen daanañ ci sukkandiku ba mel na jàng nañ mbooleem xeeti téere yépp <coughs> mu mel ni am na baat bu ñu bind tudd ko doomi soxna doomi soxna doomi soxna ñu bari xam nañ ko ci réew mi mooy ñi nga xam ne seeni wayjur dañ leen a xamoon ci diine ak ci alxuraan ak ya ci aju ñooñu la ñuy faral di tudde doomi soxna yi sëriñ bi nag ne doomi soxna ñeenti màndargaa ngi nii ci moom yoo xam ne war na koy bàyyi xel bu jëkk bi moo di doomi soxna su jàngul tilim doomi soxna bu jàngul tilim loolu Cheikh Mouhamadou Lamine Gueye Firdawsi yal na yàlla dool dolli njëgg yërmaandeem ak tawfeexam waxoon na ko mu ne doomi soxna bu jàngul tilim euh, bu sancut réer bu sancut ab dëkk day réer ndax ku ne xam na ne doomi Serigne Touba yi ñoom ñëpp buñ maase woon dëkk Touba it borom tubaa la ñuy wax waaye tey jii buñ ne Touba Belel nga mel ni Cheikh Serigne Abdoul la kon am na yëfi boppam buñ ne Taïf xel yëpp dem Cheikh Mouhamadou Moustapha Karim bu ñu demee Ndindi xel yëpp dem ci Cheikh Mamadou Fadal euh, bu ñu demee Baxdaat xel yëpp dem ci Cheikh Abdoul Khadir Mbacke noonu lay àggee ci rakkab yëpp bu ñu nee Daarul Moxti xel yi dem ci maam Thierno bu ñu nee Daaru Salaam wala Gaawaan ñu ne Gaawaan xel yëpp dem ci maam Cheikh loolu mooy kon doomi soxna bu sañcul réer ndax day dugg ci turu baayam ba kenn du ko xam bi ko ñetteel mu ne bu liggéeyul loof. doomi soxna bu liggéeyit loof kon doomi soxna aw ñaqam la war di dunde bu liggéeyit loof nag ban moo koy màndargaal dëgg mooy su jaxasoog buur yàqu kon ñeenti tomb yooyu la sëñ bi to sëñ Mouhamadou Lamine ngay tombaloon doomi soxna mu ne bu jàngut tilim tilim mun ta weesu doomi soxna jooju dikk ne ko bindal ma téere mu dem mun ta xàmmee téereb toqental ak bopp wattal ak bopp jàllawle xàmmeewut ni ñuy tudde doom ak ni ñuy jullee benn néew bu góor wala benn néew bu jigéen wala ay néew yu góor wala ay néew yu jigéen xàmmeewut ni ñuy miraase xamut ay faratay jëmmam fara faraidul ayni yi xamatu ko loolu mooy kon su jàngut tilim bu sancut réer indil naa la ci màndarga waaye su jë liggéeyut loof su jaxasoog buur yàqu kon loolu mooy tomb bi nga xam ne indil nañ leen ko tey jii muy lu yaatu lu ñu war a mën a jàngat muy bind ci mbooleem koo xam ne doomi soxna nga ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen joxaat rendez-vous ci beneen tomb incha allahu rabbi ci seen sit bi di assalaami point net ànd ko ak seen compte youtube assalaami tv di leen jaajëfal bu baax a baax di ñaan yàlla mu may nu jàmm ak xéewal bi barakati cheikhuna ahmadul xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.